shaitan rajim bismillahirrahmanirrahim ndawuma salli ala sayidina muhammad wa sallim ni sante yalla bu baakha baax di julli muhammad alayhi salatu wa salam ala rasulullah sallallahu alayhi wa salam ah, ma ngi do nuyé ñep di len di len bal ak ci wéru koor gi len bal ak yeen di bal ak senegal ak senegalais yépp di wonye ñépp si kantanu yàlla ya di len sante nak yéen xale yi sha allah li ngeen def am solo ndax ay ndaw ngeen te ma sha allah yéen ngi teggu ci njub tek sen tank siratal mustaqim depuis bu ngeen yalla indee aduna ba legi ñu yar len ba ngeen màgg ma sha allah ñu dar lu ñuy reccu ci yéen ndax lepp lu ngeen di def rek banex lay ne ak mbekté ndax ci siratal mustaqim ngeen koy tek kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax di leen gërëm di leen ñaanal yàlla yoonu yokkute bu sore sore sori di leen ñaanal tam lii ngeen di fas yéene taxawal mu di cant gi si weeru koor gi yàlla may ñu yegg si samedi ak si kant na mag mbaaxam le 11 ci barke Seydina Mohamed ñuy woo ñëpp nag bàyyiwuñu kenn monsieur le maire Coumba Fall di woo ñëpp rek bu ma merek rek damay joom demb Diop sunu délégué de quartier notable yi xalé ñom ñep ma sha allah ñi ngi wo ñep dal di wo may mun a kan responsable de femme maatam ñu kenn dal ñi ngi wo ñep ñep ñep sama jëkkër mudit di job Diop Massi du ko fàtte papi xalé yi maa koy wo di wo ñep di leen nuyu bu baax baax ma sha allah surtout yow maam Cheikh mbay tabarakallah ma sha allah laa jarul sab yal na yalla yokk fan bu guddal cër ta te may leen nag dooley poos ju bare bare bare ma ngi sante yalla suñ borom vraiment di len nuyu bu baakha baax euh aussi di nuyu wa waa Diamaguène Sicap Mbao euh aussi di nuyu association bi muy VIP family ci considération bi ñu am ci suma jëm ji ak confiance bi am aussi ci suma jëm ji ba am bëss bu toll euh dal di jël def ma parrain d'honneur bi mu nekk lo xamné ndekté bu mag la ci am bo xamné vraiment fam mu toll ci man suñu borom rek moko xam ah limay wax toujours o ngeen nar ci guxum soow parce que olof mooy wax né lo ca dang cey né na ca wul dang cey waye do ca mu né lo bokku lu nekk rek dang ca wara def bo ca deful nak dañ la ca waye bokku lo ca vraiment ma ngi len di remercier ci occasion bi ngeen ñu may mais tamit ci confiance bi ak considération bi ak yeg yeg bi nga xamne ne suñu digënté ak yeen di leen ñaanal yalla suñu borom yalla taxaw leen yalla dolel leen ba ëlëk fi ci Diamaguène Sicap ngeen di fi tabax ay hôpital di fi tabax ay école di fi tabax ay juma loolu lañuy xaar ci yeen yalla na yalla gën a yoon bi gën leena jappalé gën leena doli sutura sutura billahi billaahi mina rajim bismillahir rahmanir rahim jere jërëjëf Serigne Saliou Ah, Mangi ngi commencé di len nuyu di len sant di len gërëm ci occasion bi ngeen ma may wax ci seen bës bi wax ci itam ci borom bës bi ah, li ngeen def ken defut lu ko gën ndax Serigne saliw da di Serigne Touba bi mu toge ci khilafa gi li mu wax mooy jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom li sëriñ tubaa defoon ci mag ñi doonte yeewuma ko sax ma barkeeloo ko te ku nekk xam na ni muy sëriñ tubaa waaye maandu teem ga ak humilité ba tax mu waxee noonu kon ndawi Sénégal yi ak bitim réew mënuñu def leneen lu dul li ngeen di def. yéen nag dangeen am ndimbalul sëriñ bi ndax am na seen yenn moroom yoo xamante ni. lii ñoru leen leneen a leen ñor te loolu leen ñor ñoom lii ko gën téeméeri junni yoon kon góor góorlu leen te bu leen geestu ah di ngeen dégg nag lu ne waaye bu leen déglu bu leen geestu te xam ni ki ngeen koy defal mën naa fay ndax dafa am pay te saa su ngeen ko sosee moog yéen a koy ànd ba ngeen pare ndax li may wax de ak yeen fi ci bureau bi bir na ma ni mi ngi ci bureau bi te di deg wa ndax kat bako ko beccu ne a ah, ballay sa man lay dama bëgg nga sax fi dak te bul dem fenn de gaw sallaw loolu de xamna ni yeen nga mako de waye nak xana xamoni bu ngeen deme ba gisatu len ma ma bi ngeen may gis na len fukk bu ngeen ma gisatu kon koku ku yàlla dimbali ba mu boole la ak moom wàccoon nag yow te deseetu la dara ñun ñëpp nag nañu ànd sant ko te ñaan yàlla yokki leeram tu taas ñu ci barkeem jërëjëfe Serigne Saliou aouzu billahi min alsheytan arrajim bismillahi arrahmani arrahim wal asri inna al insana la fi xusrin illa alladina amanu wa amilu salihaati wa tawaasaw bilhaq wa tawaasaw bisabri alhamdulilahi rabbil alamin asalaamualeykum wa rahmatullah mbokki jullit yi ñoo ngi leen di siyaare ci weeru màgg wu sell wii nu dugg si ya shahru ramadaani mubaarak di weeru yërmande di weeru njëggal di weeru gore ci sawara yooyu yëpp yàlla nañu ko borom bi subhanahu wa taala defal ci weer wu sell bii nga xamante bi nit ñi moom la si nii di waajal nag bis bu màgg bis bu tedd boo xamante bi ni daaw defoon nañ la ko àndoon ko ak mbokki taalibi yi nga xamante bi ni ñu mooy waa VIP di ay mbokki jullit yoo xamante bi ni seen bëgg-bëgg benn bëgg-bëgg la seen yéene jenn yéene la mooy di feddali sunna si yonent bi alayhi salaam mustafa alayhi salaam e, ba tax ñu woote guddi gi at mu jot ñu di ko def ren jii di ñaareelu édition bi di deuxième édition bi ñu fas yéene ko def fii ci Sicap mbaaw te daaw ñu àndoon ko ak ñoom demoon teew fa ren ji it ñëw ngir sàkk waat loolu ci noonu ma ñu fas yéene koo ànd ak yéen it nag incha allahu rabbi yéen xamal ne mbokk yëpp danañ ca teew incha allah rabbi fas yéene ko ànd ak ñoom ñu ci it ay waxtaan yoo xam ne dañ ko gën a dollikonte rek muy waxtaan yu soññi ak ndax ñun ñëpp ci li ñu fi indi bàyyi ñu fi te moo di jaamu yàlla te góorgóorlu ji te teg ko ci ak xam te bañ koy teg ci ak làmbatu te xam ne tey mën a seede ne gone yi bëgg nañ lu baax dañ leen cee tegul rek wala ñi war a wax nañ war a fan war a jaar ak nañ war a mel moo des waaye gone yi moom bëgg nañ lu baax lool te lu baax ñor na leen ndax waxtu wax ndax li tax ma ne mën a seede ne waxtu lu baax ñor na leen mooy bis yu mel ni ñuy woote dajale seen i addiya di muy seen i ñaar téeméer ak seen i téeméer di ko dajale mënoon ko def ci leneen waaye ne dañ ciy woote guddi Mustafa alayhi salaam loola lu am solo la loo xamante ñëpp mag wala gépp kilifa ak diine war na leen caa jàppale war na leen caa wuyu ba tax na man sëriñ Moustapha Ndiaye al Karim maa ngi ci seen biir di fas yéene ànd ak yéen bis bi nan ko àndee woon daaw ak yéen danañ ca teew ak fondation al Karim bi yëpp incha allahu rabbi incha allahu rabbi daal bis baa ngi noonu kon bisub yonante bi sallallahu alayhi wa sallam la kon bisub tijaan la bisub xaadir la bisub murid la bisub laayeen yi la kon bisub képp kuy wax baatub laa ilaha illallah muhammad rasulullah yaa ngi ci biir woote bi bañ ñu ci ajulit sax te lu baax ñor leen ñu ngi leen di woo ci bés bi ngir wala xadd karam naa benn aadama waaye nag tàmbalee woote bi ci monsieur le maire Ndofène Fall maa ngi koy woo ci woo sama di sama wëllëre ñëpp xam sama digganteeg moom maa ngi lay yëgal bés bi da di la xamal ne ñii woote bés bi sama njabootu bopp la maa ngi leen jàppale bu baax a baax a baax nga xam ne lu baax rek la ñor te yaa ngi ciy góorgóorlu kon bis bi ci bis yu baax yi la bokk li ci woo ñëpp incha allahu rabbi tàmbalee ko ci ñëpp daal mboolem imaam yeeg kilifay diine yeeg ñëpp rek wane nañ ci bis bi incha allah rabbi